portello bravo waaw ak Farouz mbokk yi jàppante nanu c'est super jamono ak Farouz jàppante nañu ñoom ñaar Cheikh Super Diamono yaa ngi anaan yaa yaa ngi bëri ku mën a bëri Farouz Cheikh Super Diamono ak Farouz dafa mel ni Farouz fi mu jàpp dafa baax Cheikh Super Diamono ak Farouz jàppante nañu ñoom ñaar Cheikh Super ak Farouz Farouz la bëgg Farouz lan la bëgg Cheikh Super Jamono Cheikh Super Jamono moom yàgg naa bëri combat bu yàgg moom dafa mel ni combat lu mu gën di yàgg di ko gën di arrangé moom dafa mel ni combat lu mu gën di yàgg mu koy gën di bëgg mais Cheikh Super Jamono ki ngay bëreel <laughs> du cuune ndaanaan la Farouz ak Cheikh Super Jamono ba tey ñu ngi ci saaku yi apante mën naa ne mais ndengeñ bu fa duggee bëre dootul am arbitre arrêté na combat bi leen di woo ci diggi giiw bi Farouz ak Cheikh Super Diamono mbokk yi bi sifflé waat na combat bi Cheikh Super Diamono ak Feu Rouge ñu ngi lewtoo laay laay la laa takk na ko Cheikh Super Feu Rouge génn na ci Cheikh Super Diamono ak Feu Cheikh Super Diamono arbitre arrêté na combat bi mi-temps ndeysaan mbokk yi arbitre bi woowaat na leen ara Super Diamono sunu ndeyjoor waaye furu sunu càmmoñ mbokk yi ñaari xale yaa ngi liwtu laay laay la la Cheikh benn coup waaye dalul Farouz sànni na benn ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Cheikh Super Diamant est dugg boobu ngay dugg wóor na ñu ngi lewtoo ngi lewtoo ñoom ñaar c'est super jamono ak fa rouge runkum daje jàppante nañu lan la c'est super jamono bëgg c'est super jamono li nga bëgg li ngay tante est-ce que mën nga ko def feu rouge boo ko defee ma xam ne ndaanaan nga daan nga champion. jàppante nañu c'est super jamono day génn waaw waaw day génn ndax jé jékkuwul dafa jékkadi. arbitre bi woowaat na leen c'est super jamono am na benn dawaat na combat ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo Cheikh Super Diamono ak Farouz ba tey ñu ngi lewtoo ñu ñaar Cheikh Super Diamano fi mu nekk dafa taxaw di déglu Cheikh Super Diamano ak Farouz ba tey ñu ngi lewtoo mbokk yi tey Diender production def na lu rafet jël drapeau tuddee Ibrahima Faye Beuz vraiment loolu lu rafet la Beuz borom lu TV laay laa c'est super jamono mi ngi dox ci kaw furuus Cheikh Super jamono xeex boobu ngay xeex baaxul de assuré wul waa lépp ci bëgg a jàpp le problème en est daf ko ëpp relance saa bu nu demee runkum daje Farouz mooy gën a jekku mooy gën a jàpp day génn parce que li mu takk noonu Farouz saabu bu ko bëggee jàpp da koy jàpp. xaw ma loo takk la xaw ma sàngeem bi li la ah saa ko fur jàppee day jékku lool moo tax mu daw génn am nga deux maa doo ko defaraat am nga deux avertissement ñu ngi lewtoo Farouz entraîneur bi nee na nee na nee na ko del déplacé wu waaye yow kii déggu la mi ngi wax min la wan ginnaaw ngay wax ak moom. waaw jeex na de jeex na jeex na waaw day jeex. jox nañu Fourouz waaw jox nañu Fourouz ndam li